الحمد لله المنعم المتفضل بجزيل العطايا والإحسان أشهد أن لا إله إلا الله تفرد بالخلق والامتنان وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين فاتقوا الله عباد الله وراقبوه فإن من اتقاه كفاه ووقاه إن نعم الله لا تحصى وأتاياه لا تعد ومن تلك النعم العظيمة وأجلها نعمة الأبناء قال تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا وقال تعالى والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ولا يعرف عزم هذه النعمة إلا من حرم منها وهذه نعمة العظيمة هي أمانة ومسؤولية يسأل عنها الوالدان يوم القيامة أحفظا أم ضيعا وزينة الذرية لا يكتمل جمالها إلا بالدين وحسن الخلق وإلا كانت وبالا على الوالدين في الدنيا والآخرة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راء وكلكم مسؤول عن رأيته والوالد الرائية في والرجل الراء في بيته ومسؤول عن رأيته وهذه رعاية وهذه رعاية أمانة حذر الله من إداءتها وتفريط في القيام بحفظها قال تعالى إنا أردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء بترك تأليمهم فرائد الدين والسنن فعداؤوهم صغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباهم كبارا ومن آلاء الله علينا أن المولود يولد على الفطرة دين الإسلام فلا يحتاج إلا إلى رعايته ومداومة العناية به حتى لا ينحرف قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا waquuduha nnaasu walxijaara mbokk jullit yi ñu ngi sant sunu boroom boroom xéewal yu màgg yi boroom may yu kawe yi boroom rafetal jëm ci ay jaamam ñu ngi seede ne kenn yeyoowul ñu koy jaamu ku dul moom moom rekk moo yeyoo moom kese mooy ki bind waaye moom kese mooy kiy maye ñu ngi seede ne Muhammad jaamam la woon bu mu yónni woon ci ñun yal na yàlla julli ci moom ak njabootam ak ña koy topp ba ilaa yawmi diin gannaaw loolu yéen mbokk jurit yi na ngeen ragal seen boroom subhaanahu wa taala te di ko bàyyi xel ci ndigalam yi ak tereem yi ku ragal yàlla yàlla doy ko sëkk ku ragal yàlla yàlla aar ko sunu boroom ay xéewalam ci ñun kenn mënu koo natt lim ñu defal kenn mënu koo peeg waaye bokk na ci xéewal yu màgg yooyu ya ca gën a màgg mooy xéewalu ay doom sunu boroom nee na li nga xam ne mooy alal ak doom day taaru adduna la mi ngi noonu di la gën a màggalu doomu aadama di xéewloo ci kaw suuf muy alal ak i doom sunu boroom ne it ne maa leen defal ci seen bakkan yi ay peer bu dee yow jigéen maa la may jëkkër bu dee yow góor maa la may soxna may la ci ñooñu ngeen àndal ay doom ak i sët ma ndax la nga xam ne mooy xéewalu yàlla yi nit ñi dañ koy weddi ah di gëm leneen lu loo xam ne ay neen la loolu moo tax ba mbokk julit doom mi ngi noonu di xéewal goo xam ne kaka xam dëgg-dëgg mooy kaka yàlla subhanahu wa taala xañ waa ji sëy lu yàgg amul doom fu ne dana fa dugg clinique bu ne dana fa dem fu ne dana fa ñaan lu ngir lan ngiree mën a am xéewal googu nga xam ne muy xéewalu doom comme naka yonent ya ko yàlla xañoon doon ñaane yàlla loolu mbokk julit bu la yàlla boolee ci ñim xiiwal may la doom xamal na it loolu responsabilité bu màgg bum gàll ci soloos la yowmal qiyaama yow baay ak yow yaay yàlla dana leen dajale laaj leen loolu mu tegoon ci seen loxo ndax sàmmoon ngeen ko ba teg ko fi neex yàlla wala seetaanoon ngeen ko ba mu sanku la nga xam ne mooy yoonu yàlla ay yow baay ay yow yaay xamal ni li nga xam ne mooy xiiwulu doom du mën a mat adduna mat alaxira lu dul ne doom boobu dafa matal ñaari mbir ca mooy mu daa di matal diineem daa di am la nga xam ne mooy jikko ju rafet su dee ne doom boobu amul diine amul jikko ju rafet même bu doon te ne bala kay yàlla jox xiiwal la dana wëlbatiku nekk ci yow la nga xam ne musiba lay doon adduna avant muy nekk musibab alaxira yow yaay yow bàyyi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee ne képp ci yéen day ab sàmm la ku nekk daan ko laaj lam doon sàmm yowmal qiyaama góor daan ko laaj nu mu sàmme woon njabootam soxna daan ko laaj nu mu sàmme woon kër jëkkëram loolu nag dafa laaj yow nga daa di xam ana lan la yàlla bëgg lan la yàlla bañ ci njaboot su dee ne maître bi balaa jàngale daañ ko defal formation jàngal ko yóbbu ko école normale formé ko ngiree mu mën a jàngal ay xale ci yoo xam ne da leen di yor peut-être six heures wala huit heures de temps par jour yow mi nga xam ne yaay bàyyi wala yaay njabar gi yàlla dala koo dénk vingt quatre heures sur vingt quatre heures ko mel noonu yaa gën a yey laaj nu ñuy yare doom yaa gën a yeyoo formation nu ñuy formé doom loolu na nga ca bokk xam ci ne ne la nga xamee ni nii mooy doom nekk na responsabilité bu mag boo xam ne sunu borom yàlla nee na su dee ne defoo ca la ma neex ëllëg ki sibir da nga dajeeg sama mer moo tax mu ne lii nga xam ne mooy dénkaane jox naa ko asamaan jox ko suuf jox ko montagne yi ñoom ñépp ñu bañ ne yàlla loolu duñ ko gàddu duñu gàddu responsabilité bàyyi ñu rek ñu jaamu yàlla ñun kese mu ne doomu aadama ne gàddu na ko su ko defee yow doomu aadama xamal ne du yow rek yaay nekk sa diggante ak sa boroom ngay rendre compte yowmal qiyaama déedéet loolee da ngay gis ne ñaka am mooy malaaka ya ak yeneen bàyyuma ya amma yow nit ak jinne yàlla dalaa gàll responsabilité sa bakkan gàll la responsabilité sa njaboot gàll la responsabilité sa alal su dee njiit la mu gàll la responsabilité la nga jiite te loolu lépp yàlla dala koy laaj yowmal qiyaama bokk na la nga xamee ne expérience génn na ko mooy la ëpp ci njaboot gi la leen di réeral mooy càggante ga nga xam ne waajur yi sàggan nañ ko ci ñoom te bañ leen a jàngal lan mooy seen faratay diine lan mooy seen sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolee xale bi ci bi muy ndaw mu sànku ba màggee munul jëriñ boppam munul it jëriñ la nga xam ne mooy ay waajuram ay yow mbokk julit xamal ne bokk na xiiwal gu réy gu ñu yàlla defal yàlla yónni wu ñu ay doom yu dëng ne fexe leen ngeen jubbante doom yi bal bépp doom buy juddu ba ilaa yawmi diin na juddoo Makka wala mu juddoo Washington yépp ci bokk yem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na kuy judd rek mbaax nga judduwaale lislaam nga judduwaale yow kay waajur lan moo la dese mooy aar xale boobu teete xale boobu suuxat ci moom la nga xam ne mooy mbaax ga ba baa mu daa di màggaale loolu daa di dund loolu ci kanamu boromam moom la ñu sunu borom di wax ne ay yéen julit ñi fexe leen musal seen bopp waaye musal la nga xam ne mooy seen njaboot ci sawara loolu nag mbokk yar boobu bàyyi ak yaay di yar doom ci jubal ko wala seetaan ko mu réer xamal ne jéego ba ca gën a màgg mooy yow comportement bi ngay won sa njaboot sa njaboot loo leen mën a wax xamal ne say jëf la ñuy gën a xool say jëf la ñuy gën a roy moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ko yàlla yónnee muy nettali ab téeréem it da caa boole ne laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana ñeen na leen royukaay bi rafet ci yonent yàlla bi moo tax sahabatul kiram kenn mënul mel na ñoom bi ila yawmi din dañoo boole woon di dégg waxu yàlla boo lee gis yonent bi di ko pratiquer ci seen kanam loolu it yow bàyyi yow yaay xoolal sa bopp del contrôler même bu la yàlla nattoo ay càggante fexeel ba sa njaboot bu mu ko yëg mukk waaye njaboot gu remarqué ne saa baay day jouer PMI saa baay day doxaan saa baay day nangam ak i nangam njaboot googu li tubaab yi naan mal parti ils sont mal parti lu tax mooy loo leen mën a waxatiit loo leen ñu teg seen bët dafay doon luy marqué ci ñoom waaye gannaaw sa jëf xoolal ni ngay waxee ak sa njaboot moytul njaboot googu di wax ci ñoom wax yu ñaaw dagg ay saaga rëbb wax lu ñaaw diggante jëkkër ak jabar xuloo ci seen kanam yooyu yépp day doon mbir yoo xam ne day jeexital ci xale bi xale boobu mën a doon mënul bon à cent pour cent waaye mënul baax à cent pour cent la nga xamee ne mbaax la ci moom dee ko nemmeeku di ko ci tagg di ko ci félicité loolee da ngay gis day yokk mbaax ga ca day xam ne yow mii bëgg nga ko amma bu amee jukko bu bon na nga fexe teete ko naxante ak moom muñul ko ci loolu jàpp ni li ab feebar la boo xam ne dama war a jëfandikoo ak xikma ngiree mu daal di doon koo xam ne ku wér la loolee moytul ma saaga ya bul dóor sa doom lu dul loo xam ne extrême nécessité la mooy loo xam ne mënul ñàkk waaye yar ko dëgg-dëgg war ngaa mën a yar fekk sax ne doo dóor amma xale bi su dee ne tàmm na ci kanamu nit ñi di dégg nga koy xas ci kanamu nit ñi di dégg nga naan ko doo tekki di ko duma muy yooxu ci kanamu nit ñi koo kay day ñàkk kersa ca heure bu demee ba toll na yow ba mënatoo ko dóor lépp loo ko daan tere dana ko def sa kanam loolu di mbir yoo xam ne ku ne ñun da cee war a bàyyi xel yar xale loolu xikma la sagesse la pédagogie la xale yi war ngaa fexe ñu doon ñoo xam ne dañ lay miin dañ lay bëgg waaye duñ la yàpp doo nekk benn gendarme boo xam ne boo ñëwee ci kër gi ñépp na teg kenn ñemetu la sëqat waaye doo doon yambar moo xam ne nii sa njaboot faalewuñ la lu leen neex la ñuy def déedéet mooy da ngay nekk ca la nga xamee ne nii moom mooy diggante boobu loole nag la la koy may mooy dee leen jege di waxtaan ak ñoom di xam lan moo nekk ci ñoom xoolal li ñu yàlla nettali ci ci luqmaan ba nga xamee ne ma ngay wax ak doomam ja ma nga toog ak moom jokkale ko ak boroomam sama doom bul bokkaale ak yàlla mukk loolu bàkkaar mënu koo paase sama doom xamal ne foo mën a nekk loo fa mën a def yàlla xam na ko sama doom na nga nekk ak mbooloo mi nekkin bu rafet bul nekk di xeeb nit ñi del diglu lu baax del tere lu bon loole da ngay gis ne am njàngale la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis nañu ne bokk na ci liñ daan jàngale te ñun africains yi daanaka ñun ñoo ci jël coupe bi mooy daje yiñ daan daje ci place lekkukaay yi ba sax am na benn jigéen boo xam ne nii ci France bi ñu ne ci benn téere wone ci ne ne Afrique nañ daan yare ci la nga xam ne mooy autour di bool mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi lekk benn xale xale bi sàggan lool bu tibbee fee tibb fee yonent bi wax ko baat yu gàtt gàtt ne koy sama doom sammillah kul bi yaminik kul mi ma yalik ay sama doom booy lekk na nga tudd yàlla waxal bismillah nga lekk sa ndeyjoor ca lekk li sës ci yow yuuxuwu ko dóoru ko waxu ko yàqamadi loolee di njàngale moo xam ne mi ngi woy ba sun jamonoy tey loolu mbokk julit ci la ñuy xamee ne kër googu nekkate yoote su dee école ubbi na tey parents yépp di rey seen bopp ma fan laa yóbbu sama doom fan laa koy jàngale mbaa bàyyi nga xel ne sa kër mooy école ba gën a am solo bu sa doom di génne mbaar bàyyi nga xel ne sa kër mooy sa réussite njaboot adduna ak alaxira mooy école boobu nga xam ne mooy école kër ga loolu ku ne ñun war na ca bàyyi xel xam ngeen bokk na lu ñu yàlla nattoo suñ jamonoy tey daanaka école yi nga xam ne état bi moo ko yor amul benn école boo xam ne da lay jàngal tegginu lislaam loolu amut allahuma lu dul ay école privée yoo xam ne baadoola mën a faa yóbbu doomam ngiree en général chérité ba nga xam ne moo fay nekk loolu moo tax ba jël sa doom yóbbu ko école it bu mu tey nga fexe ba dem koo jàngal la nga xam ne mooy diine lislaam ci sa kemtalal kattan ca falilahi alhamd bari na fi ay place yoo xam ne sa doom mën naa jàngi école teewul mu jàng nan lay xame diineem bokk na ci jàkka ji bari na xale yu bari yi fi nekk dañuy jàngi école bu samedi ak dimanche ak jour férié ñu ñëw jàngi fi ak yeneen i place loolee war ngaa góorgóorlu jéem a sa njaboot nekk ci loolu fexeel ba sa kër ba mu nekk këru restaurant am na lu bari ci këri jullit yi tey restaurant la salon bu ñuy soloo ak fu ñuy tëdd kese mooy xale yi li ñu xam añ jot nañu ñëw añ reer jot nañu ñëw reer bu ñu nekkee dem seen yoon bu ñu jógee sango ba set ubbi armoire sol seen yére bu ñu demee ba sonn ñëw tëdd lii mooy rapport ak seen kër xanaa lenn mooy tax ñu toog fa mooy toog jàkkaarloog télévision bu bon boobu nga xam ne jàngaliwul lu dul la nga xamee ne mooy kéefér ak jukko ju bon loolu itamit fexeel yow ba sa kër nekk këru julit bari na këru julit ñi tey yoo xam ne boo yënd woon kër chrétien ya ak nga yënd kër musulman ya doo gis benn différence ci loolu mbokk loolu ëpp naa def waaye kër julit ko fa yendu daa war a xam ne maa ngi yendu kër julit bi waxtu julli jotee ñépp bàyyi nañ lañ doon def dem nañ jàpp daal di julli ji la nga dégg ñu koy wax mooy wax ju yàlla gërëm la nga gis ñu koy jëf mooy jëf ju yàlla gërëm loolu nag ak lu jamono yàqu-yàqu fexeel ba sa kër bokk ca sunu borom yàlla mi ngi ñuy nettali ca jamono yonent yàlla luut nee na ba ma yónnee samay malaaka ñuy alak dëkk ba fa ma wajadna fiha gayra baytin min almuslimin région lëmm-lëmm sunu borom nee na benn kër laa fa fekk kër googee ñoo nekkoon ci biir lislaam ca mooy kërug yonent yàlla luut lii mbokk kon nañ góorgóorlu jamono bii école bi ubbi parents yépp seen bopp ubbu na waaye ñi ngi leen di fàttali école ba gën a màgg ci école yi ca mooy kër gi nga xam ne ñaari maître ya fay jàngale mooy ki ñuy tudde baay ak ki ñuy tudde yaay yal na yàlla wërsëgal ñu réussir ci njàng moomu teeteel ñu suñu njaboot ila siratul mustaqim wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ayuha al ab ayatuha al umm أنتما في عبادة الله حين تربية أولادكم والإنفاق والسهر والمتابعة والتعليم بل حتى إدخال السرور وممازحتهم إذا, إذا احتسبتم ذلك قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دينار أنفقته في سبيل الله ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك قال تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان قطعا كبيرا ولا تنس قول النبي صلى الله عليه وسلم كل لحم نبت من سحت النار أولى به رواه أحمد والدعاء عباد الله الدعاء هو العبادة وقد دعا الأنبياء والمرسلين لأبنائهم وزوجاتهم وكم من دعوة اهتدى بسببها الدال وكم من دعوة اختصرت مسافة التربية ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أي mbokk julit ñu ngi yeesal di santaat sunu borom mi ñu war a sax di ko sant di ko ñaan mu julli ca sunu yenente ba muhammad sallallahu alayhi wa sallam ay yow baay ay yow yaay xam leen ne yéen ñaar day yéen a ngi ci jaamu yàlla gu màgg jamono bi ngeen jógee di yar seeni doom jamono bi ngeen jógee di dépenser ci seen njaboot dépense boobee lu ñu lekk la dépense boobee lu ñuy fajoo la dépense boobee lu ñuy soloo la dépense boobu lu ñuy fay ci am njàng la xamal ne loolu lépp day yaa ngi ci jaamu yàlla yow bàyyi yow doom njaboot gi feebar nga fanaane ne la woo guddi yow bàyyi yow doom yow mi topp la nga xam ne mooy sa njàngalam njaboot yow mi nekk di bégal sa njaboot bal yow mi nekk sax di kaf ak di foo ak sa njaboot lii lépp xamal ne mi ngi dugg ci biir jaamu yàlla su dee sa yéene sell na ci loolu sunu borom yàlla nee na binduma nit ñeeg jinne ñi lu dul ñu jaamu ma ab julit lépp loo xam ne yaa ngi koy def xamal ne ñaar moo ci mën a nekk imma yàlla gërëm na ko wala yàlla gërëmu ko yàlla gërëm na ko kon jaamu yàlla la yaakaaral pay ci yàlla lu mu néew néew yàlla dana la ca fay sunu borom nee na loo mën a def loolu lu mu néew néew danaa la fay na doon baax na na doon bon na fa man yaamal misqaala zaratin xayran yara wa man yaamal misqaala zaratin charan yara yonent bi salallahu alayhi wa sallam daana wax ak sahaaba yi na leen nga amoon benn dinar masalan mille franc amoon nga mille franc daa di koy fekk kuy jihaat ci yoonu yàlla nga ne ko am dimbini kooko nga am beneen mille franc fekk miskin bu jaaxle nga ne ko am dépensé ko nga jël benn mille franc jox ko sa njaboot imma ñu lekk ko wala ñu soloo ko wala ñu fajoo ko yeneen bi alayhi salaam nee na mille franc bi nga dépensé sa njaboot day moom la yàlla gën a gërëm ca moo ëpp tuyaaba loolu muy wane ne nekkate yóote ab julit heure buy dépensé ci njabootam day am xel mu dal ci ne lii day lu yàlla gërëm la yàlla moom mi nga xam ne moom a ko wërsëgaloon yàlla wërsëgal na ma it ma def ko fa nga xam ne mooy fa neex yàlla te yàlla moo ñu dig ne bu leen rey seen doom yépp ngir ragal ne da ngeen di ñàkk déedéet loolu it muy wane ne dépense sa njaboot bu mu jàpp da ngay tax nga ñàkk borom bi nee na maa lay wërsëgal di wërsëgal njaboot gi sa njaboot nu mu toll képp kenn ci ñoom daa yor wërsëgu boppam yow waajur bi leen yor ci yow la ko yàlla di jaarale boo deewoo nit yàlla jaarale ko ci keneen loolu yow julit da nga ko war a gëm loolu moo tax ba doo doon ko nay doonte ne it doo doon koo xam ne ko yàq la fexeel faggu alal joo xam ne ju dagan la indil sa njaboot bokk na parents yu bari yu échec ci yar seen njaboot mooy dañ leen a dundale loo xam ne lu xaraam la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bépp yaram boo xam ne lam lekk ba màgg mooy lu xaraam yaram boobu de sawara moo ca gën a yey sawara moo ca gën a yey mooy lan mooy du nekk jaamukatub yàlla kon nekk te yóote bokk na parents yu échec seen njaboot mooy dañ leen a yare loo xam ne nii yàlla subhanahu wa taala gërëmu ko loolu it moo yow mbokk julit góorgóorlul ba xam ne njaboot gi jàngal bañ leen di jàngal dañ cee war a rafetal sunu yéene yéene ba mooy lan mooy ëllëg mu doon njëriñ ci société bi mën a doon koo xam ne kuy jaamu yàlla la yow nga yéene sama doom bi de maa ngi koy jàngal et yàlla yàlla na nga ko def mu nekk un médecin boo xam ne ëllëg ci sibir jigéen ñi ak góor ñi ku ci jaaxle dana mën a ñëw faj la yàlla yàlla nekk ingénieur boo xam ne nii tey jii ma nga nekk ca centrale yi di liggéey yàlla yàlla na nga ko def koo xam ne nii xatta bépp façon liggéeyu àdduna la la cay dimbali mooy xam-xam ki xam ak ki xamul mënuñoo yem loolu day wone ne du question na njaboot gi dañ ne rek lañ leen war a jàngal alquran ñu nekk rek ay jaamu ko te yàlla wala ubbi ay daaray alquran déedéet société bi buñ ci amee un sur mille boo xam ne dañoo jagoo daara ya ña ca des nañ tasaaroo ci leneen te ñu xam ne borom daara ya wala fi nee nañu ña nekk ca kër ga ña nekk ca naajoo ñoo leen ca bàyyi ka nga xamee ne moo jiite daara ja ka jiite jàkka ja ëppul importance que jiite école ba ëppul importance que jiite centrale ba nga xam ne ni mooy defar en courant ba wala mooy defar usine bay defar lekk ga loolu dañ cee war a bàyyi xel waaye nag loolu na nekk sunu yéene bu mu nekk mukk sa yéene mooy sama doom bëgg naa mu réussir kut ko kut nga gis benn xale bu jigéen boo xam ne nee na ñooy am na bakk ñu daal di koy jël sànni Canada kan lay fekki Canada ndax ndey wala baay wala maam déedéet ay tubaab yoo xam ne gëmuñu yàlla gëmuñu yeneen ci yàlla mbokk julli loolu alal jaru ko abadan loolu alal jaru ko sa doom bu ko yóbbu mukk ci école boo xam ne ña fay jàngale gëmuñu yàlla gëmuñu yeneen ci yàlla ngiree nga jàpp ne ay école de qualité la loolu ay naxaate la te bokk na sax expérience bi ñu mujj gis léegi école catholique yooyu nga xam ne boo demoon quatre vingt dix pour cent ña fa nekk ay doomu jurit lañu seen résultat gënu gënu ta baax la nga xam ne mooy résultat école yi jurit yi yor ca la ñuy jàngale ci suuf loole yow parent mënuloo ko xam abadan bul bokk ci loolu abadan la nga xamee ne it yow goo yow bàyyi war nga koo xam mooy ñaan day mooy gànnaa yu julit sa alal ji nim la mën a dimbalee ba nga mën a am kër alal ji dimbali la ba nga mën a dépense sa njaboot xamal ne ñaana ko ëpp doole téeméeri yoon yonent yàlla yi dañ daan sax di ñaanal seen njaboot yi ngiree yàlla subhanahu wa taala jubal leen di ñaan ngir yàlla may leen njaboot gu baax aka bari ay ñaan yoo xam ne jubbanti nañ ko réeroon loolu it muy wane ne sa njaboot bu dee yàlla sànq na ca kenn del ñaan yàlla yéwénal ko yàlla delloosi ko ila siratul mustaqim aka bari ay ñaan yoo xam ne nii yombal nañ way jur lam waroon a def benn borom kër sonn lool ci njabootam amu ca benn résultat amu ca benn résultat amma amma yow yàlla baaxe la nga gis koo xam ne nii sax léegi kon liñ doon wax rek moo di ne ni mbokk ñaan yàlla subhanahu wa taala dana ca génnee résultat yoo xam ne du ko génne ci ay effort da ngay gis benn waajur a ngi nii gisoo muy xuloo njabootam gisoo mu sonn ci njabootam waaye doom yépp màgg baax loolee bokk na la koy def mooy ñaan yàlla subhanahu wa taala jubalal la sa njaboot tekkiwul nag ne damay ñaan rek frankulaayu déedéet da ngay boole ñaar yépp di def say effort waaye bokk di ñaan yonent yàlla yi bu ñu xoolee alquranul karim dañoo gis ne dañoo commencé woon di ñaan yàlla njaboot gu baax avant njaboot gi di judd daañ ko gis ci ibrahima alayhi salaam gis ko ci ki nga xam ne mooy yonent yàlla zakariya alayhi salaam rabbi habli min alsalihin la ibrahima waxoon ak la nga xamee ne nii moom la zakariya ñaanoon yàlla may ko doom wajalhu rabbi radiya di doom boo xam ne bu ñu gërëm la gannaaw ba kii di ibrahim mi ngi naan yàlla rabbi ijalni muqima salaati wa min zurriyati yàlla yàlla nag ma may may taxawal julli maag sama njaboot julli googu nga xam ne mbokk julit mooy li lay jokkale ak sa boroom soo bëggee réussir sa njaboot xamal ne la ca gën a màgg gën caa am solo mooy fexeel ñu taxawal waxtu julli juróom ñaaxal njaboot gi yar leen ba ñuy taxawal waxtu julli juróom yow waajur na nga rus sa kanamu boroom sa doom bu bu indee bulletin école am absence ñu def ci zéro mooy cours yépp fekke na ko musul absenté amma sa waxtu julli boroom mu koy sàggane loolu doo am lay boo ñëwee ci sa kanamu boroom nañu fexe njaboot gi di julli góor-góorlul ci xam ne njaboot googu yar bi nga leen di yar day ca la gën a màgg ci yiw yi ñu yaakaar ëllëg yowmal qiyaama la yonent bi alei salaam nee na nga fexe ba jubal kenn nit moo gënoon nga am xamuru naim te mooy mooy gënoon nga am ay parc mercedes bu doon suñ jamonoy tey xamal ne yow julit soo bëggee sa doom jox la sa àq ba mat sëkk na nga fexe ba jokkale ko ak boroomam ba mu xam kuy boroomam doom boobu rek mooy màgg di wax yàlla ah yàlla na nga yërëm samay waajur kama rabbayaani sagira yàlla na nga yërëm sama waajur comme niñ ma yare woon bi may ndaw lu waral loolu mooy xam ne diineem gis nga bu loolu amul day profité ci yow feeg yaa ngi dund bis boo dee fàtte na la bépp doom boo yar te yaroo ko ci diine booy dund mi ngi profité ci yow yàkkamti na nga dee mu jël sa alal lu mën a jël ci jël ko bis boo dee fàtte na la amma yonent bi alayhi salaam daana wax ne kii dee day bàyyiwul gannaawam lenn loo xam ne dana ko fa fekk lu dul ñetti mbir te mbir yooyu bokk na ca la nga xamee ni nii moom mooy doom ju baax ju lay ñaanal doom jooju nga yar ci lislaam yar bu rafet day tax ba moom kum mën a yar ci njabootam ñooñee ku ñu mën a yar ñooñee ku ñu mën a yar ba ilaa yawmal qiyaama yool ba dalay fekk la nga xam ne mooy yawmal qiyaama sa njaboot gi boo baaxee yar leen ci mbaax na sa xel dal même booy dee ci pauvreté ci ñàkkit xamal ne yàlla du leen seetaan abadan yàlla ngi ñu nettali na Muusa alayhi salaam àddina ànd na ak benn xidar di benn ci jaamu yàlla bu yàlla xamaloon bañ demee ci benn dëkk fekk fa benn miir buy waaj a daanu xidar daal di koy yëkkati Muusa ne ko am na lu tax nga yëkkati li ci gàttal mu ne ko gis nga miir bi dafa am ñaari xale yu nekk ci dëkk bi yàlla seen baay dafa nekkoon ñu baax dencal leen fi benn denc léegi nag bala ñoo mën a jot ci alal ji miir bi dafay daanu ca ñoom majeur guñu moo tax ma yëkkati ko ngiree balaa miir bee daanuwaat ñu majeur bu ñu xoolee seen dénkaana bàyyi buñ gasee miir bi fekk ko fa yàllaa ñu nettali loolu suratul kahf loolu lan la ñuy jàngal mooy yow baay bu baax yow yaay ju baax même bu doon da ngay dee nga gis ne bi ngay dee yaa ngi doon ko ñàkk na sa xel dal na sa njaboot bis bu ñu màggee yàlla di leen seetaan ca la nga xam ne mooy ndimbalu yàlla gu sax yemal ak ministre ministre wala général wala lu mu mën a doon loolu kon mbokk ñi nga ñaax suñu bopp di leen ñaax ci tijjiteeg l'école bi nañ ci nafaraat l'école bu mag bi nañ ci nafaraat maître yu mag yi l'école bu mag bi mooy kër yi maître yu mag yi mooy yow yaay yow baay yal na yàlla jàppale ñu jàppale bépp julit yal na yàlla subhanahu wa taala xamloo ñu sunu war a gor sunu njaboot yal na yàlla jàppale ñu tegal ñu njaboot gi ca yoon ba nga xam ne moom la gërëm yal na yàlla wërsëgal sunu xol sedd ci ñoom àdduna ak alaxira lépp loo xam ne day sànq njaboot gi yal na yàlla teet ñu bañ mën koo moytu àdduna ak alaxira yal na yàlla barkeel njaboot gi sunu gannaaw def leen ay jaamukatu yàlla sunu gannaaw ba ñun ñëpp yàlla dajalu ñu ak ñoom ci àjjanaam yi gën a kawe rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati ma yasifuna wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin